gis ngeen ni euh, ni ñuy gaawantoo ci dossier yi yow nee nga dem nga première instance le 30 juge wax na li muy wax juge boobu d'accord ma ak àtte ma ah, ma profité wax ko d'accord ma ak àtte ma d'abord agressé nañ ma feebar naa tëdd naa samay avocat ñëw ànd ay certificat médicaux mu ne du ko jël loolu pour la ñaareel bi li mu def mooy li tubaab bi wax couper la poire en ah ñee xam naa ni trois mois la ñu pour waa ji bañ a mën a nekk euh, candidat du ma leen jox trois mois waaye nag il faut ma sexal leen dara man gëwmu ni noonu lañuy ñuy sooy àtte bu waa ji defee condamné ko bu deful bàyyi ko yàlla xam na ni defuma kon def condamnation naan 200 millions depuis quand la ñu mus a gis diffamation ñuy naan nit 200 millions fii Sénégal fan lañ ko mus a gisee ñoom ñu naan ay juge bu Pastef la nangam nangam man de xaw ma ko musuma koo gis njort naa nag ni juge bu sérieux la peut-être dossier bi di soon ci pression yi mais bu ñu jàpp ni d'accord nañ ci jugement bi def gis nga man du ma ramener les choses à une question de éligibilité na nekk candidat ñu bëri bi ñu leen leen lii rek tant que nekk na candidat ñi naan man mun naa fa deux cent millions déedéet fukki dërëm duma ko fay waaj yi bu yóbboo mu toog foofu di gént kon d'accord ma jugement bi et et c'est pourquoi samay avocat dugal nañu li ñu war a dugal ñoom ci àjjuma bi fas ñu ne premier dossier